Euh, sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. tur bi naka la. Alaaji Ndour. Alaaji nduur tey ñu ñëw file ci garage bi nga xam ne moo nekk juste à côté euh, grande mosquée bu Dakar euh, ñu dégg que ne am benn bébé bi ñu fi sànni ni ki démb jox jot nga fekkee mbir yi ak lan leeral nga ñu mën a jox ci li nga xam ne moom moo fi xew. dégg la yaay booy démb non lii deeru de lii dama neex waaw dëgg la démb waaw dañoo xëy si rek tombé si waaw fekk ñu ibbi ñu gis fi benn liir. ñu def ko si mbuus waaw mais boobu kenn ñemewu ko laal parce que yaram yi daw na te metti na waaw mujj gi nag ñu dem woo sapeur jotuñu ko ñu dem police bañ demee police la commandant bi ñëw woo sapeur ba ñëwee si lañ ko xool jël ko yóbbu waaw mais mu doon lu metti daal wax dëgg yàlla waaw mu doon lu metti trop waaw xamuñu ko def jëf jooju waaye ñaaw na dëgg yàlla waaw. d'après bi ngeen gisee liir bi nga xam ne sànni nañ ko naka fan lañ ko def dañ ko def si mbuus wala dañ ko lëmas teg ko fi wala nan la demee. non non si mbuus lañ ko def lëmasuñ ko sax lëmas bu jekk waaw dañ ko def si mbuus noonu rek tegal ñu ko foofu ndax dañoo foog ne mbalit la sax moo tax ñu ko doon sànni si mbalit bi mais bañ ko yëkkatee muy moom ñu bàyyiwaat ko foofu quoi waaw. d'après bi ngeen ko gisee ndax góor la wala jigéen la. waaw bañ ko xoolee góor la waaw góor la waaw. mbaa dund na. non non non dundul dundatul waaw. waaw que mooy euh, ñu ay 9h dañ ko fekk. waaw 9h ko fekk mais daal xam naa ne moom boo matul euh, fii daal war ñoo dimbali muy si lamp yeeg yooyu parce que boo am ay surveillance xëy na dina feeñ waaw mais fii moom guddi gi day lëndëm loolu daal mais xamuñ ban heure lay set waaw mais ba ñu xëy see 9 daal lañ ko fi fekk incha allah. d'accord bi ngeen gisee xale bi ndax lan la leen lool ndax xale buy soog a judd la wala bu ku judd ba am ay semaine aussi. non non non non lu lu tooy xepp la kay. liir bu tooy xepp la dëgg yàlla waaw. liir bu tooy ndax dem naa man ba xool ko ñemewu ma daanaka mais dem naa ma xool ko waaw ndéek démb ndékki jaaruma si añit noonu waaw. metti na trop non moom kay lu ma yëg moom munu ma ko wax lu jóge si man moom du dellu si. waaw wax dëgg yàlla. d'accord c'est la première fois mu fi am na fi am. non fois mu si am. waaw man li dégg rek laa si doon am maa ngi ci doog a teg sama bët. waaw dama ko doon dégg mais man ngi si doog a teg sama bët quoi. waaw ñu gis ne aussi tey am na ay jigéen ñoo xamante ne ñu ngi sëy ay 2 ans 3 ans wala sax 4 ans yoo xam ne du ñu am doom tey boo amoon message booy lancé jëmale ko ci ki jëf-jëf ji ban message lay doon. wallaay mënoon na ko mayee rek ndax am naa sama xarit boo xam moo ngi sëy 8 ans amul oh, am naa sama xarit boo xamante ni Lamine Ndiaye musul am góor kon kooku yaakaar naa ne moom loolu bu ko gisoon yaakaar naa si la na a yittewoo waxtuma koo xamante ni seen i huit ans sama benn xarit wallahi musul am doom waaw kon ba sama ba mu ko gisee sama xel si kooku la dem direct waaw démb am naa lu ma yëg trop trop trop trop ba nii may wax dellu si man wallahi azim ba nu ma tëddee dem si guddi affaire bi jàpp na ma waaw doon na lu métti trop wax dëgg yàlla métti na trop trop trop. non non amuñu si benn information bu leer dégguñu si dara dara dara wax dëgg yàlla waaw sapeur yóbbu na ko wax dëgg yàlla waaw. ndax am ngeen jot ne ko bi ko si yaay na muy moom amuñu jot loolu mënu see xam dara ndax daal bañ ko gisee noonu yaakaar naa ne dee na mhm. waaw parce que xool nañ ko dugalaat ko si mbuus beeg takk mbuus beeg yëpp sapeur yóbbu mhm. waaw. message bi ci jigéen yi si jigéen ñu ñu gën a góorgóorlu mhm. xëy na tam ñenn ñi caaxaane ñu bàyyi ko waaw parce que am ñoo xam ne xëy na dañu am jëkkër topp seen naf su baqan ba lii dal leen xëy na tam ñu mën ko defee nii ñenn ñi tam dañuy jógee village ñëw liggéey si ba loolu dal leen xëy na tam moo tax muy demee noonu mais daal war nañu mën a góorgóorlu seen bopp bu baax a baax a baax waaw waaw waaw mooy di sant ñëpp rek wax dëgg yàlla waaw police moom ñoo ngi koy sant bu baax waaw police rëbës bi ndax bañ ñee def nañ seen liggéey woo sapeur wax dëgg yàlla sant nañ leen bu baax te fii waaw ñu dimbaluñu rek defal ñu ay lamp wax dëgg yàlla bu ko defee ñuy mën di gis waaw mais jëf ji daal ñaaw na trop daal waaw bu ñu mënee dimbali si loolu daal wax dëgg yàlla ñu jël waaw ñaaw na trop waaw jërëjëf yaay booy jërëjëf